kaddu gi nii lay mel suba elle raconte euh, le contraire donc ma ne bu nekkee dans ce figure la parce que <laughs> xam naa ne da ngay jaawale procédure yi ak CREI yi CREI yi lañ lay jàpp ne la yaa moom lii waxal foo ko jëlee mhm. mais dans le cadre des cette affaire là ki nga xamante ne nii moom moo moom moo moom moo accusé mhm. kooku mooy indi les preuves te preuve boobu bi ci jiitu mhm. mooy un certificat médical dinaa ci ñëw léegi tout à fait Pape euh, euh, Moussa euh, oui prise rek benn benn précision bu ndaw parce que ñu bëree bëri ñu ngi may interpeller sànq ba léegi ci date bi mais vidéo bi boo xoolee YouTube lañ ko dugal nit ñi mën nañoo dugg ñu cliquer xool lien bi ñu bind dañoo def en tout cas ci li ñu gis rek laay wax ah. discours Ousmane Sonko euh, direct discours Ousmane Sonko 31 décembre 2019 avec Pape Alé Niang. Mm-hmm. bu ñu duggee nag da ngay gis ñu defal la il y a trois ans mais boo cliquer wee si biir lien bi di nga mm-hmm. gis. 31 décembre 2019 déjà sax ñoom noonu lañ ko titré en tout cas. je oui. sais pas nag bon xëy na ñiy seetaan ñooy jugé après. Mhm. ak euh, li xew mais ñun juste on a fait que relater les kii parce que je reçois en tout cas instant bi nii. Mhm. beaucoup de messages ñuy wax que ni date bi du loolu ñii ne loolu la mais ku dugg cliquer en tout cas loolu lañ bind 2019 te aussi bi ñu ko dugalee c'est le 31 décembre 2019. 31 décembre 2019 discours ku neex mën nga tapé euh, discours Ousmane Sonko 31 décembre 2019 avec Pape Alé Niang ku ko tapé sur YouTube di nga ko gis. d'accord oui. li ma ci li ma ci bëggoon a yokk. Mhm. mooy que Ousmane Sonko dem na Sweet Beauté demul Sweet Beauté là ne pas la question. Adji Sarr bu mu demee di porte ci plainte newul dafa porter plainte parce que Ousmane Sonko dafa ñëw Sweet Beauté dafa ne. Mhm. il y a répétitif. Mhm. ak menace de mort donc bu ñu demee bay xool. dañuy xool ndax. loolu mu accusé Ousmane Sonko. am na lu ko matérialiser ba ñu mën a wax ne Ousmane Sonko kat. justement maam Birame foofu la foofu la foofu la problème bi am. Euh, parce que gis nga li nga wax Moustapha may ma rek gis nga li nga wax dañ ciy taxaw. xam nga mhm. lu tax ñu ciy taxaw nga baal ma Moustapha. Mhm. gis nga nit suñuy juger la jurisprudence sax mën na permettre a un juge. Mhm. koo xam ni tey indiwul preuve par exemple ñu xool par rapport à toute la procédure. ndax la mu wax di ko wax di ko wax di ko waxaat dafa ndiroo mhm. gis nga suñu jëlee le cas en l'espèce mooy cas bii nga xam ne moo lëmbe Sénégal mhm. à chaque moment dans cette procédure wax yi juyoo wax yi dafa juyoo donc loolu rek. war na hmm. mën a tax tey ñu xam ne nit mënuñoo jàpp nit naan dañ koy tëj ci lii. Ousmane Sonko lii kenn mënu ko ci. alors bala may ñëw ci preuve amul. oui bala may ñëw ci Pa preuve rek moo ñu fi dajale tey pour ñu mën cee waxtaan ndax il pa il s'agit procès. parce que parce que li tax wax ji maam Birame li nga wax sànq am solo mooy man euh, en tout cas dans ma façon de de de conduire les débats que je fais ici mooy on est en face d'une accusation de viol. Mm-hmm. et pas d'autre chose. le le tribunal li ko intéressé mooy est-ce qu'il y a viol ou pas lan moo koy wax ne am na viol voici les preuves qu'il y a viol le tribunal fonctionne comme ça li ma ci bëgg li ma ci bëgg a donc euh, d'ailleurs am na am na d'ailleurs un de nos doyens qui a fait cette cette remarque là mu ne moom il n'a pas compris la presse sénégalaise hmm. parce que le lendemain du procès il s'attendait à ce que la presse sénégalaise dis si effectivement l'accusation de viol a été soutenue par des preuves ou pas. Mm -hmm. Mais la presse sénégalaise a préféré mm -hmm. raconter le film au Sénégalais un film porno mm -hmm. voilà pour pour dire les choses. li ma ci bëggoon a dolli par rapport au procès. par <laughs> par rapport au procès ñun ñëpp ci lañ bokk. une certaine par rapport au procès moral. xaw ma ndax di nga si ñëwaat ou pas. maa ngi ci maa ngi ñëw. ok alors Pape Makhtar euh, euh, alors ñu ñu bari wax ne le procureur lui-même. parce que fii li intéressant ci waxtaan mooy semaine bi yëpp vous avez fait l'effort comme Sénégal yi ñu seetaan yëpp ah de lire le procureur de lire l'accusation de lire euh, les témoins et tout loolu moo tax waxtaan bi ma bëgg ñu def ko benn benn alors le procureur ñu bari dañu wax ne Pape dafa am problème moom pour mën a soutenir l'accusation te dëgg-dëgg rôle mooy doon soutenir cette accusation la est-ce que bi nga liiree le réquisitoire du procureur da nga ci say analyse da nga gis ne amul cislaay lu mën a teg ne fii laay teg sama accusation waaw mais li ñuy wax du du du wax boo xamante ne dañ ko teg euh, noonu rek euh, comme comme ça mais hmm. euh, dañ koy sukkandiku rek ci ci ay droit parce que effectivement li Pape Sané di liir noonu si loolu la procureur bi sukkandiku parce que procureur bi dans sa logique mooy nañ condamné Ousmane Sonko. Hmm. mën na rëcc ci viol bi parce que viol dafa jafe dafa jafe dafa jafe prouvé. Hmm. surtout nag koo xamante ne amul boo xamante ne benn benn preuve bu matériel la. alors ko mënta tëj. ci viol te moom jàpp na ni peut-être duñ ko mën a tëj ci viol ndax amul preuve boo xamante preuve bu matériel la bu leer la preuve bu scientifique la. Mhm. nañ ko toppee ci proxénétisme parce dañu nar a tëj Ndeye Khady Ndiaye euh, proxénète mhm. parce que bu ñu nuwee Ndeye Khady bërëb bii lieu de débauche la. Mhm. ki fay ñëw mën nañ la topp. ci corruption de jeunesse. donc ñoom moom procureur bi dans sa logique mooy Ousmane Sonko bu rëccee ci bi. warut a rëcc ci condamnation bi nga xamante ni moom njoxtu na dinañ ko def ki nga xamante mooy. mooy moom nañ doon jugé parce moom moo fa nekkoon ndax euh, avocat aussi moom nekkuñu fa mais moom moo fa nekkoon. Mm-hmm. li ñu doon insister mooy que ci lieu boobu noonu benn lupanaar la maanaam benn lieu boo xamante nit ñi dañ fay nekk di mm-hmm. jaay seen bopp di def nag sudul noonu. Mm-hmm. mais loolu tey je que ni du procédé bu honnête parce au départ li ñu doon wax. woo ko violé mais Adji Sarr elle-même dit que ni foofu gisu fa ñu fay def loolu. waaw dégg naa ñu ñu ni moom moo wax. loolu que ni euh, fekk fu ñuy fu ay góor jigéen di sëy ak yu ni mel. Mhm. parce que aussi moom du dugal boppam quelque part parce que aussi délit la euh, booy def prostitution te amoo ay këyit yow aussi coupable nga. Mhm. donc pour dire que procureur bi li muy def xam na ko bu baax a baax a baax. nekkul di ne xam na ni pour nga tëj Ousmane Sonko ci viol li jafe la mais lu jafewul peut-être ci ñoom à leur niveau mooy fexe ba tëj euh, Ousmane Sonko bu ñu tëjee ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moo tax ñu viser euh, lu mu tudd euh, kii corruption corruption de jeunesse. Mm-hmm. parce que ñoom ci logique bu ñu nekk loolu la boo moytu Ndeye Khady nañ nar a condamné bàyyi usman Sonko ci mbirum viol te bu ñu demee ci lool dañuy naan Ousmane Sonko yow mi nga doon dem ci lieu boobu noonu de mhm. mën nañ la jàppee ni da nga doon corrompre ay ndaw di leen yàq da parce que loolu mooy délit de jeunesse mooy fekk ay xale yoo xamante ne quelque part dañu xaw naïf mhm. nga utiliser benn pouvoir wala ngay utiliser benn moyen di leen corrompre ñiy def naka sudul noonu mhm. donc loolu noonu tey ji lool lool loolu la procureur visé maintenant bu ñuy dellu soit ci procès beeg euh, li wax yëpp ci ay kàddu ñaaw ak yooyu noonu euh, Cheikh Anta Diop rek la na problème bu yàgg te gis nga euh, euh, dama jàpp ni dafa am loo xamante dañ koy faral di wax communication li ci ëpp solo mii la perception tey euh, Moustapha di nga am dëgg. Cheikh mhm. waxoon nañu ko saaga day yàq dëgg. di nga am dëgg am na façon boo koy waxee kenn dootul waxateeg yow kenn du la jépp mais boo delluwaatee ci mbir yi nga contextualiser ko. Mhm. depuis trois ans ñoom lan nañ doon préparé xale bu jigéen bi. xale bu jigéen bi am na première déception mooy ba mu jàkkaarloo Ousmane Sonko ci confrontation ba mu génnee lan la wax ñemewul wax waxul ak man. Mhm. donc kooku préparé woon nañ ko peut ci loo xamante ne bu jàkkaarloo Ousmane Sonko dina ko wax. Mhm. ñi ngi koy former ñi ngi koy jàngal peut-être di ko jàngal loo xamante ne bu demee ci tribunal bi dina wax ak Ousmane Sonko bu gisul Ousmane Sonko boppam lay wax ah. parce que kàddu yooyu mu doon njëkk di wax yaakaaruma mu. Euh, kii boppam noonu bay toog di wax yenn wax yi parce que amoon na yeneen forme yu mënoon utiliser li muy wax mu wax ko ñun ñëpp comprendre ko te du yegg ci ci ci yenn waxi ni plateau bii ñu nekk di wax am na ay termes yu gën a ñaaw kenn du si jaar te pourtant même chose bi lay fi am na ay termes yoo xamante ni ñu gën a ñaaw voilà kenn du ko def donc je crois que ni vraiment euh, bu ñuy comprendre Muré dañ koy comprendre ci logique gu koo xamante ni dafa ñëwoon pour defante mais comme bëggoon defanteel nekk fa donc léegi moom kase moom mooy wax te bii wax moom kase dafay nekk mbir yoo xamante ni kenn du ko kenn du ko mën a dégg parce que ay mbir yoo xamante ni yu ñaaw la mais bu fa kilifa gi nga xamante ni moom la doon visé nekkoon bu waxee ak moom noonu réaction bi muy xaar ci kilifa gi mooy ko ba ñun ni ñuy choqué woo ni kooku noonu la doon choqué ba peut-être mu am beneen réaction boo xamante ne réaction boobu c'est la nit ñi di taxaw di appesantir. alors euh, Pape Sané le le cas Ndeye Khady Ndiaye def euh, elle s'est défendue ba léegi gisaguma euh, ci lecture yu ma lire yëpp que nag nekkumoon ci biir salle ba des des preuves yoo xam ne teg nañ ko contre elle. nan la nan la des avocats de la partie civile le procureur nan lañ mën a amee difficulté. pour charger une femme boo xam ne elle s'est défendue seule. waaw moi je crois que Ndeye Ndeye Khady li ko ci génne Moustapha ça a été la constance man li ma doon xalaat. dans un premier temps mooy bi ma ko gisee benn moment vu son état maître Moussa Sarr daal di laaj ne comme dafa nekk jigéen bu wérul. Mhm. nañ ko utal fu mu toog.